dem ci euh, leneen maître comme ni ñu koy defee coow li bari na niki démb tey jëm ëllëg sax mënees nañu ko wax euh, ndax nag waxtu wi tembe déclaration de politique générale bi nga xam ne ñu ngi ko doon xaar ci euh, premier ministre ñu faral di ko gis gis nañu ni nag fi mu ne ni jur na coow est-ce que tey déclaration de politique générale waxtu wi obligation la ci Ousmane Sonko. bon merci Fatima esquisses de réponse des interventions yoo xamante ni ji bi def na ko Saa Wolof aussi def na ko à travers historique bi nga xam ne ni def na ko sur la loi et aussi Abdou Khadre mais boo xoolee xam nga il faut qu'on revienne sur euh, les fondamentaux parce que les gens ont tendance à dire que droit dafa bëri contradiction mm-hmm. oui science la boo xamante ne nii dafa bëri contradiction mais am na ci sur certaines questions yoo xamante ne ni les dispositions sont limpides comme l'eau de roche comme l'eau de roche mm-hmm. c'est-à-dire tout ne prête pas confusion dans la science juridique mm-hmm. cest dire am na ñenn ñoo xamante ne bu bu fekkente ne danoo nekk dans une situation inconfortable en termes d'argument dañuy jéem a gëmloo nit ñi ne droit kat ku nekk am nga droit nga interpréter ko nu mu la neexee. Mhm. am na ci point yoo xamante ne nii donc ça prête à confusion. mais mmh. sur certaines questions de droit. Mhm. amul mmh. contradiction mhm. les dispositions sont limpides comme l'eau de roche. et je crois que en la matière situation bi nga xam ne nekk nañ ci euh, disposition constitutionnelle bi nga xamante ne ni moom la ñuy citer à à tort peut-être ou à travers donc dafa nekk de limpidité déconcertante. lan moo xew xam nga le premier ministre. en droit dans la nomenclature institutionnelle moom mooy moom mooy coordonner ce qu'on appelle l'action du gouvernement mm -hmm. donc moom mooy moom mooy le patron du gouvernement mm -hmm. donc bu fekkente ne tey ji par exemple la constitution du Sénégal dafa prévoir donc à travers une disposition mm-hmm. nekkat premier ministre bi kat dafa war a def sa déclaration de politique générale boo xoolee la disposition de l'article cinquante cinq da lay wax ne après sa nomination mm -hmm. le premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Mmh. Cette déclaration de politique générale donc est, est, est, est suivie d'un débat qui peut donner lieu à un de confiance. C'est ça la disposition. loolu mooy lan mooy bu fekkente ne nommé nañ ko ba pare premier ministre bi kat dafa war a def ce qu'on appelle une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. mooy lan maanaam déclaration de politique générale bi mooy. lépp loo xamante ne mooy orientation politique. Mm-hmm. globalement bi nga xam ne gouvernement moom la bëgg décliner fan lañ bëgg a yóbbu sénégalais yi premier ministre bi day ñëw kat assemblée nationale confronté wu avec ñi nga xamante ne tey ji moom mooy député yi ñu leen tuddee les représentants du peuple. Mm-hmm. maintenant pourquoi mu war a confronter avec les députés parce que il faut pas perdre de vue mm-hmm. que assemblée nationale dafa am rôle contrôler l'action du gouvernement au-delà du fait que assemblée nationale nekk institution boo xamante ni voter loi légiférer moom mooy seen fonction primordiale il n'en demeure pas moins que aussi am nan rôle am nañ fonction wu contrôler du gouvernement. Mhm. et comme que assemblée nationale moom moo war a contrôler du gouvernement donc le premier ministre constitution daf ko jox possibilité nekk kat après sa nomination demal assemblée nationale nga def sa déclaration de politique générale. nga janoo ci waxtu la ko war a defee. léegi nag boo xoolee article cinquante cinq de la constitution amul benn délai boo xamante ne jox na ko le premier ministre. Ah pourquoi par exemple nga gis contradiction bi ak tollu bi ci am mooy. Mhm. xam nga assemblée nationale dafa amoon article quatre vingt neuf règlement intérieur assemblée nationale après sa nomination le premier ministre a 90 jours pour faire sa déclaration de politique générale. Mm-hmm. bi loolu amee on a constaté que en 2019 le président de la république l'ancien président de la république dafa jëloon dogal mu supprimer li nga xam ne moom mooy poste premier ministre. Mm-hmm. bi mu supprimer poste premier ministre mu emporté waale en tout cas. suppression disposition boobu nga xamante ne nii mooy article 89 bi prévoir oon ne dans les 90 jours le premier ministre dafa war a ñëw assemblée nationale obligatoirement. Mhm. mu def ce qu'on appelle sa déclaration de politique générale. mais Fatima. Mm. au-delà du fait que disposition article 89 nekkatul en vigueur parce que supprimer nañ ko. Mhm. donc la seule disposition en la matière bi nga xam ne si leen mën a sukkandiku mhm. ne tey jii ça tout mooy l' article cinq de la constitution et l' article cinquante cinq de la constitution dans sa lettre comme dans son esprit n'oblige pas le premier ministre Ousmane Sonko mu dem assemblée nationale def sa déclaration de politique générale autrement dit à partir du moment aucun délai n'a été imparti pour que le premier ministre mën a dem assemblée nationale def sa déclaration de politique générale ce n'est pas une obligation c'est une faculté que lui donne la constitution bi nga lu mu wax article bi dane je fais même la glose c'est-à-dire article bi ni niñ ko ni ko disposition bi indee mhm. noonu laa koy waxee c'est ce qu'on appelle en droit la glose dane après sa nomination le premier ministre doit faire sa déclaration de politique général mhm. cette déclaration de politique général est suivie d'un débat est suivie d'un débat qui peut mhm. donner lieu à un vote de confiance xam nga doon la lay signifier mooy bu defee déclaration de politique générale ba pare day am débat est suivi d'un donner lieu à un vote de confiance. Mmh. mais ñiy wax ne par exemple motion de censure mën na am. mais le verbe pouvoir utilisé par la disposition constitutionnelle. Mm. day militer en leur défaveur. parce que tey jii nii Ousmane Sonko bu ko neexee mu def sa déclaration de politique générale ba pare question de confiance boobu noonu moo escamoté ko de prendre en considération la question de confiance parce que disposition bi da après sa nomination le le, le après sa nomination le premier ministre fait sa déclaration de politique générale. Mmh. déclaration de politique générale est suivie d'un débat. Mm-hmm. qui peut donner lieu à un vote de confiance. kon motion de censure bi mën na impossible. non mais c'est-à-dire amul mën na sax mais la motion de censure est impossible juridiquement au vu de l'article de la constitution que je viens de préciter pourquoi parce que pour que motion de censure am. Ousmane mm-hmm. Sonko moom moo mën a jël risque jox naa leen vote de confiance. parce que article 55 baa ngi ne bi nga. article 55 baa ngi ne le premier ministre fait sa déclaration de politique générale donc cette déclaration de politique générale est suivie d'un débat qui peut à la du premier ministre. Mm-hmm. donc euh, donner lieu à vote de confiance. Mm-hmm. mais si le premier ministre ne demande pas la vote euh, le le le de confiance vote de confiance boobu du am. Mm-hmm. te vote de confiance bu amul motion de censure mënul am. xam nga tey si la disposition avait dit cette déclaration est suivie d'un débat d'un élu à vote de confiance bu fekkoonte ne on avait utilisé le verbe devoir dans la disposition précitée bu boobaa le premier ministre est dans l'obligation après avoir tenu en tout cas sa déclaration de politique générale mu ne député yi kat léegi je vous soumets un vote de confiance pour que ngeen xool ba xam gouvernement bi ni muy doxalee baax na wala baaxul te bu booba à partir du moment où le premier ministre est n'a pas n'a la majorité à l'Assemblée nationale mhm. une motion de censure et la, jurisprudence de l'ancien PM Amadou Ba xam nga loolu tamit waaw xam nga xam nga xam nga buñ pa buñ buñ waxee la jurisprudence pour man sax cette jurisprudence n'a pas lieu d'être citée en la matière mm. pourquoi parce que moment bi Amadou Ba nekkee woon l'article 89 de la constitution nekkoon euh, l'article 89 mm. du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dafa joxe woon délai mm-hmm. et même même même dañuy indiwaat je parle je parle de la première déclaration de Amadou la première déclaration de Amadou Ba bi ñuy indiwaat Amadou Ba am amul délai parce que boobu fekk nañu supprimer poste premier ministre te bi ñu supprimer poste premier ministre dafa entraîné waale la suppression de l'article 89 bi joxe woon délai 80 80 90 jours bi mm. mais Fatima dafa am leneen lu ci am mm. même bu fekkoonte ne disposition boobu dafa continuer le premier ministre Ousmane Sonko n'est pas obligé dans les 92 jours de faire sa déclaration de politique générale. xam nga lan moo tax xam nga lan moo tax. Hmm. dafa am une contrariété entre deux dispositions. les dispositions contenues par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Hmm. et les dispositions constitutionnelles. léegi nag dañuy delluwaat en droit. dañ lay jàngal en première année en droit ce qu'on la pyramide de l'égalité hmm. moom moom au au sommet de la pyramide il y a ce la constitution moom mooy la norme fondamentale toute disposition contraire la constitution est anticonstitutionnelle mm. autrement dit mm. même bu fekkoonte ne article 89 bi ñi nga xamante ne tey ñooy wax ne Ousmane dafa war a dem assemblée nationale def sa déclaration de politique générale même bu continuer woon di exister mhm. au au au vu de l' article cinquante cinq de la constitution Ousmane Sonko n'est pas obligé pourquoi mhm. parce que article quatre vingt neuf boobu noonu sax dafa nekk en violation de la constitution dafa nekk en contradiction avec la constitution bi nga xam ne moom mooy la charte fondamentale bi nga xamante ne nii toute disposition contraire boo xamante donc pour rassurer par exemple même ñi nga xamante ne ni jàpp nañ ne bu disposition boobu continuer woon di am 90 jours même en de pareille occurrence le le premier ministre Ousmane Sonko n'est pas obligé pourquoi parce que les dispositions constitutionnelles l'emportent sur sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale bi nga xamante ne c'est une simple loi organique donc bu fekkente ne loolu am na rek la conclusion bi nga xamante ni mën nañ ko tirer mhm. après avoir en tout cas fait la glose de cette disposition de l'article de la constitution mhm. mooy l'article 55 de la constitution ne fait pas une injonction mhm. au premier ministre de faire sa déclaration de politique générale c'est une faculté qui lui ci délai bi nga xamante ne ni à sa convenance te même bu ko defee ba pare il n'est pas obligé de demander au député de de faire ce qu'on appelle le vote de confiance te vote de confiance boobu noonu bu fekkente ne faculté la boo xamante ne ni premier ministre moom moo ko mën a demander député yi bu amul donc motion de censure mën noona ko permettre ndax mën naa la laaj euh, nga gindi ma un peu ci wàllu privilège ak marge de manœuvre yi nga xamante ne ni moom le premier ministre am mhm. ndax euh, moom premier ministre en mhm. matière procédure nan laa ko mën a waxee sax en matière procédure législative. Mhm. ndax moom dafa am ay yenn ci ay privilèges yu mu am moom premier ministre. procédure législative. waaw oui non xam nga xam nga xam nga privilège bi nga xamante ne ne am na ko en la matière bu fekkente ne si si dañoo reste si question déclaration de politique générale bi privilège bi am constitution moom moo ko ko jox. Hmm. pourquoi constitution jox ko privilège boobu noonu. parce que aussi xam nga xam nga xam nga xam nga le constituant. Hmm. parce que euh, le constituant. Hmm. day prendre en considération des situations yu ñëwagul. Mhm. xam nga lan moo tax article cinquante cinq jox def def par exemple faculté deful injonction premier ministre pour que tey jii kat moom mu def déclaration de politique générale et que bu defee déclaration de politique générale ba pare mu soumettre ce confiance. Mhm. parce que euh, pré euh, bi ñuy bi ñuy tënk constitution bi prévoiroon nañ ne. salteel bi nga xamante ne tey jii yenn opposants yi nekk assemblée nationale mën nañ ko def. Mhm. mën na leen permettre tey jii bu fekkonte ne danoo disposition bi dafa jox injonction bu premier ministre ñëwee assemblée nationale def sa déclaration de politique générale ba mu ba mu normal. bu fekkente ne il n'a la majorité à l'Assemblée nationale pour que ñu def motion de censure des facile te boobaa motion de censure boobu noonu député yi koy def dañ koy def sur la base de politique politicienne alors que day am ay ramifications day am ay représailles terribles ci li nga xamante ne tey ji moom mooy dundunu askan wi mm-hmm. parce que la déclaration de politique générale elle prend en considération toutes les orientations yi nga xamante ne ni gouvernement bi daf ko war a jël mm-hmm. pour wax nit ñi par exemple fan lañ jëm en termes d'économie en termes de politique en termes de de et autres donc faculté boobu noonu nga xamante ne ni disposition bi jox na ko Ousmane Ousmane Sonko c'est juste wu ah une motion de censure aussi facilement te même tey jii sénégalais yi nga xam ne ñoom ñooy wax ay motion de censure motion de censure mais savez-vous que même motion de censure bu amoon je dans l'hypothèse où motion de censure am mën nanoo destituer gouvernement bi d'accord mais le président de la république bu ko neexee mën naa nommewaat les mêmes membres. ci ci parce que bu boobaa amul benn disposition bu naan boo boo boo boo boo boo boo boo bu même bu même bu motion de censure bi amoon dans l'hypothèse où motion de censure bi même bu amoon amul benn disposition constitutionnelle ba naan Diomaye bu boobaa kat falaat beneen premier ministre da falaat beneen ministre de la justice non non le président de la République peut reconduire le même gouvernement juridiquement je dis reconduire le même gouvernement leer na au-delà même de point de presse bi nga xam ne ñoom def nañu ko démb dinañu xool léegi élément ayib dafe bi mais man sama question mooy. au delà même de point de presse bi nga xam ne def nañ ko est ce que mën nañu porter plainte pour faux usage de faux wala naka lañ mën a toppee attaquer li nga xam ne mooy li tënku ci règlement intérieur bu assemblée nationale alors que nguur gi wees mënees nañu jàpp ni rek tënku wuñu ci woon. est que mën nañu dem mbir yi mën na yegg ci yoon. waaw xam nga falsifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est d'une extrême gravité. Mmh. mais c'est d'une extrême gravité bi. bu demee tey jii Sénégal bay wax ne loolu c'est rare au-delà de au-delà même de la gravité bi nga xam ne dañ koy wax faux usage de faux bi nga xamante ne nii Fatima mu ngi koy junj tout à l'heure mais quelle est l'image bu Sénégal war a renvoyer à l'international bu ñu demee bay wax nañu suñu assemblée nationale bi nga xamante ne tey jii nii kat règlement intérieur bi dañ ko falsifié règlement ko falsifié mais loolu c'est d'une extrême gravité mm-hmm. et je crois que une enquête mérite en tout cas d'être d'être ouverte mm -hmm. dans ce sens-là pour qu'on puisse situer les responsabilités mhm. te loolu nekk na question boo xamante ni ça nécessite même mhm. une commission d'enquête parlementaire ah mhm. oui jusque-là une question d'intérêt d'intérêt majeur règlement intérieur de l'Assemblée bu nit amee sañ-sañu tey jii ni di ko di ko di ko falsifier mais mais mais mais c'est débat qui mérite qu'on s'y attarde ci simplement pas par exemple mu yem ci ñu ciy wax mais ko qu'on qu'on qu'on qu'une enquête soit diligentée mhm. à bon mhm. ñu xool tey jii nii kat kan moo am sañ-sañu falsifié ak ki ki nga xamante ne tey jii moom moo ko falsifié ba mu koy def c'était à quelle fin oui ak ñan ñoo nekkoon derrière lui parce que c'est faux la et de faux mhm. sur des documents yoo xamante ne tey jii nii assemblée nationale nekk institution boo xamante ne ni li ko tax a jóg moom mooy contrôler l'action du gouvernement. Mhm. ñu dem ba mën a wax ne règlement intérieur doon ko falsifié je mhm. ne tey ji jàpp nañ ne laale nañ ci affaire boobu noonu ñu traduire leen devant les juridictions répressives et que véritablement bu que bon je sais pas am na ci. Mhm. mooy yan article ci bi la ñu la ñu la ñu laal la ñu la ñu falsifié wala jàppoo ko. bon bu fekkente ne d' après. Euh, ndax xëy na bu ñu xamee yan article la. tout à fait rek dañuy mën a xam intention yi. tout à fait parce que boo xoolee par exemple article yi nga xamante ni dinañ ko article 89 ci la bokk. Mm. article 89 règlement règlement xam nga article bu njëkk bi dafa waxoon ne mm. le premier ministre obligatoirement dans les dafa war a def sa déclaration de politique générale mais boo xoolee par exemple ñoom bi ñuy biñ bi ñu procédé à la suppression de premier ministre lañ profité waale ñu supprimer mm. beaucoup de dispositions yi nga xamante ne ni contenu dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale mm-hmm. léegi nag la suite de ça lañ dégg ne par exemple ay falsification tant du pouvoir que de l'opposition dénonciation bi dafa war a nekk lenn loo xam ne ñëpp ñoo ko war a defandoo mhm. parce que loolu nekkul lenn loo xamante ne nii c'est c'est juste pour faire des manœuvres politiques. day day day écorner en quelque sorte l'image du Sénégal dans dans son hmm. entièreté. Hmm. Hmm. donc je crois que comme ni ma ko waxee tout bu ñu demee ba mën a toll en tout cas si degré de bassesse boobu noonu di di di falsifier règlement intérieur pour satisfaire en tout cas une préoccupation politique xaw nag ban préoccupation politique lañ bëggoon satisfaire dans ce sens-là. donc ça mérite en tout cas amul fenn fu ci je sais pas code yi amul fenn fu ñu wax ne euh, ndax am na damay laajte quoi mhm. ndax am na fu ñu wax ne ki modifié mbir mi ndax ki laaj na ko sànq. mais daan daan yi nga xamante ne ni moom lañ c'est une infraction pénale ji mhm. c'est une infraction pénale parce que le code pénal prévoit le délit faux usage de faux. dafa am faux usage de faux. en écriture authentique en mhm. écriture privée et faux usage de faux sur de faux mhm. yoo xamante assemblée nationale la nekk. boobaa ñi nga xamante ne tey jii ils sont coupables de ces faits. Mmh. Même procureur de la République, il peut se ressaisir en la matière. Ah Parce que j'ai dit tout à l'heure question d'intérêt, d'intérêt majeur. Procureur. Même le procureur de la République a le pouvoir bon de se ressaisir sur la question pour élucider en tout cas ces faits. xam kan moo falsifié règlement intérieur assemblée nationale te buñ buñ buñ leen xamee mën na leen traduire devant les juridictions répressives. mais, est que ndax nag boo xoolee ni ñuy toppee ci déclaration de politique générale bi di ko forcer est-ce que xalaatoon nañ les conséquences derrière parce que lii fi maître jukki léegi amaana de bu leen leeroon ni euh, nii la ko yoon tëggee est-ce que dinañu ci euh, pointer du doigt. est-ce que xam ne sàcc yëpp xam nañ ne ku sàcc dañ lay tegi daal. absolument sàcc yëpp xam nañ ko. Mhm. bu ñu waaw mais su booy boo bu fekkee da dem ba intention sàcc wala def naka su dul noonu moom. Mhm. doo xalaat sax yow. conséquences yi nga xamante ni moo la ci fekk. mais bu la wóoree da am ndey. waaw. c'était ça aussi. waaw mooy am wéeruwaay la. ci gàttal mooy li ma wax rek am ndey ndey sàcc ja mais xam nga ndey ji ndey ji mënu fee nekk éternellement. ndey ji moom sa ndey bi la jur sax. ah ci gàttal xam nga ne bés dina jot mu noppalu <laughs> te bu noppaloo mënees naa am li nga def nii mën nañ leen cee topp donc waaw waaw ku ku ku naagu daagu <laughs> <laughs> mi donc mu ngi noonu uh-huh. mais mais pour pour uh-huh. di nga saa li ma doon mënu fee jàpp maa ma yokk xalaat mais samedi samedi samedi géewal la saa wolof sama député à l'Assemblée nationale man man sànq li ma bëggoon a laaj mhm. maître mooy euh, li ñu fi wax yëpp ci wàllu ay déclaration politique générale yoon may na ko premier ministre ou pas je pas mhm. yooyu yëpp wanewul ne réew mi bëri woon na yi nga xam te ni yëpp buñ ci tegee suñu loxo rek ñu dégg ci vide juridique oui parce que Sénégal boo xoolee euh, d'où même l'importance des assises de la justice parce que Sénégal dafa bëri ay vide juridique ay situation yoo xamante ni amul benn disposition bu ko prévoir et bu fekkente ne par exemple vide juridique am na rek mhm. on libre cours aux commentaires les commentaires vont bon train te bu fekkente ne par exemple vide juridique am na endroit li nga xamante ne tey jii nii moom la juriste yi def mooy lan mhm. dañuy dellu ginnaaw mooy situation bu mel nii est-ce que mas na am mhm. ba mu amee yan taxawaay ci amoon c'est ça la jurisprudence mhm. bu fekkente ne jurisprudence amul nag on a l'habitude de dire que la nature a horreur du vide mhm. mais le droit aussi a horreur du vide parce que vide bu amee rek day créer ce qu'on appelle une insécurité juridique parce que duñ xam par exemple quelle est la solution à à et à partir du moment où duñ xam quelle est la solution à c'est pourquoi bokk constitutionnelle les lois ordinaires ñu def de telle sorte que xoolaat fépp foo xamante ne tey ji amoon na ay vide juridique ñu essayer combler vide juridique yooyu noonu pour que Sénégal mën tegu en tout cas mi ngoog am ñu dem euh, teewlu euh, moom euh, président groupe parlementaire bu yeewu askan wi Ayib Daffé kàddu yi nga xam ne jot na ko yëkkati démb